mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi parcelle terrain ak apes Modou Lo def open press démb ma seen la woon tey Modou Lo la olof moo ne ku fóotal mbokk roccil bar nday Fatou Adama Jalle ma doon fële démb waaye fii tey mbayam na ma fi mbayam bëgg naa la. Babacar fay naa la. mbayam yaay wayal Modou Lo nday Fatou moo wayal Eumeu Sène yow yaay wayal Modou Lo luy loolu. mais ñun ñëpp ay artistes lañ def bu ñu woo rek da ngaa war a liggéey loolu la rek. mbër noo koy yebe ah li mu koy yebe man daal woy moom a war maa ngi woy aussi woy aussi mooy suma rôle suma digganteeg moom jàppante nañ ay xarit lañ ay xarit lañ te ay xarit lay doon it ku ñëw it xarit rek xarit ngay doon. may ma ci wala nga ko tuuti ci séeréer may ma ci tuuti a cappella. ah comme nga di dégg Modou Lo bi rek bi ñëpp xam rek. Modou Lo haraño a refa ñige. waaw loolu boo koy teg joof mooy lan. xam nga ko mën naa expliqué. ko mooy Modou Lo xarañ Lo mu xaralee ci ni mu xarañee ci làmb ji euh, Yaxya Diop nekk ci éléphant éléphant Yaxya éléphant la éléphant la si moom it kontaan ci yow kontaan ci yow non benn international. oui loolu la ñuy wax daal international. waaw sant rek di gërëm bu baax a baax gars yi waa waaw pare nañ pour dimanche pour def lépp. Ah, ah. waaw lépp lu gars yi xaar rek mooy si biir. naa leen mais mais gars yi mais xarit moo ñu boole. xarit moo ñu boole waaw ñëw pour jàppale moo doon rek am ndam. ndam rek moo moo seen moo jaar ba lañ koy jaaraat ndam rek incha allah. am na ko dóor yéen baal ko mu fayu. waaye nawoon fa woon nawoon fa woon Philippe Oya 2 0 gaaw incha allah yàlla may ñu ndam ñu ma a ko dugg nga faas xar ko ñaari yoon ama fa a waxuma a ñaareel papa Sow jox nga faas Balla Diouf nga raas daw génn balaa moo xar noonu nga jaaree grand yow fekk ko pël wëlis adresse nga or wan moo di première di or fii yaa fi fort dem nga ne yaa ko ndax fu mu leer Cheikh ña ngi ko nga xëcc ci ci suuf dafa booy bambara ñëw nga ne ko bërëb boo ci bëggee xarañ nga commencé ci basin mi laay bay ñëw arbitre joxe coup doom booy kere ñëw nga mat xati dóor mu daan toog daa adré ñu naan Sénégal loo lamb ji loo téléphone sax bu ñu la wooyee boo décroché da nga naan allo sapeur bu ñu amul loo duñu fay la ko solos bu amul loo kër ko bay taltal ak loo la boo demee ba géej dafa fekk loo moo war a sëriñ Tuubaa ne jala jala loo isakama loo mu ne ko ma seen teel ci mën loo doomu góoral loo lu bigin baax rek lu bigin baax rek lu bigin baax rek lu bigin baax rek parcelle ñeer ko lu bigin baax rek parcelle ñeer ko lu bigin baax rek parcelle ñeer ko ko muse ni boo ñaa bu xarañ loo ni boo ko weddee eh, eh man sama doomu ndey Cheikh Sow maa ngi lay bëggee Babacar maa ngi kontaan lool maa ngi lay maa ngi kontaan maa ngi kontaan jàkkaarloo ak yow lool ngeen di bëre combat revanche est yomb eh, du yomb moom mais nag ndam li yàgg yàgg ndam li ñëw parce waaw mais du yomb nag ndax dafa pare ma am moo pare ñoom ñëpp ñibbi seen mbokk ànd ak ñoom pare pare xoolal tey jii a ak bés yu mel nga xam ne kon waa parcelle yëpp ñu taxaw moo tax du yomb su làmb ji noonu lay demee làmb ji léegi soo yóbboo xam ne dara yombut fi roi des arènes góobu ma ni benn mbër doot na ko yore cinq ans waaw comme ni man nga defoon ak yitini moom fi gaaw a dégg ndax boole taxaw nañu te niñ ciy def d'accord yaa xool camion yi ay camion ngay seen ay remorque état fu nekk da nga fa toog pour bëgg a seetaan gars am na génération xarañ am na xarañ famille am na xarañ moo ñu boole am na xarañ international loolu lépp ay façon supporter la pour Modou Lo mu mel ni ko la nga gisoon dem Pikine tey jii di nga gis lu mel noonu fii di parcelle wala lu ko xaw a jege sax na taala xale yu jigéen yaa ngi nii taxaw dëgg naa la miis. Modou Lo rek. Eumeu Sène dina day fayu de. Eumeu Sène du fayu. Eumeu Sène fu muy la. wax de Eumeu Sène këtt la. këtt waaye loolu la. ma ne la la wax. Eumeu naama la. 2-0 du ay foo. tegal du ay foo du doon. 2-0. Eh, këtt benn yoon daan ko doolul ñu koy ñaareel te bëggee bu bëggee sax ñu wisal ko muy ñetti. déggoo li ma la wax te ci yoole boobu ñu ci góor a daal ci yeta te dawuñu ci sala yaay ne ragal ko te xaram màgg na doole waaw waaw defe naa àddina yëpp xam nañ ak xarañ bu Medina Ousmane ngeen di bëre ñu combat ramas dimanche ak Eumeu Sène Eumeu ne ku ko dóor yet bi da koy aal mu fayu looy wax ci loolu loolu wax la rek Babacar avant tout lay nuyu yow sama xarit nga sama nit nga euh, Babacar wallahi Modou champion li mu wax wax na ko ne yet bi fa door nañ ko ko dencee nañ ko ba pare te duñ ko ko abalaat bu soobee yàlla ci kattanu yàlla dimanche incha allah ko doon décharé bu soobee yàlla. est ce que Lamine Goma Sène dina nangu lool. waaw Lamine sama la maa ngi commencé ko nuyu maa fàtte naa ko maa koy nuyu xam nga moom yaa ma gën a xam dina ko nangu mën dawañ bu soobee yàlla. kii mooy xarañ bu Medina xarañ est ce du ko nangu ci waaw buñ nuyoo sant la gërëm la nuyu gaay ah waa ji ne day nangu force de. dama lay wax ab la force de. yow laa koy laaj kay. xam nga du force daf may neex ma abal la bu ma neexul du ma la abal kon loolu wax bu yàqu la wu la wuñu maye wuñu saraxe wuñu loolu wax bu yàqu la. est-ce que Issa du nangu. Issa nag ci man lañ xëy tey suba ba léegi sama talwan bi fay ndax Lamine lu ne nag ñu ngi koy wax ma ne leen yàlla rek moo am doole yàlla na ma yàlla suturaal parce que li ngeen may waajal yàlla bu seen pexe ànd <laughs> yàlla yàlla na ma yàlla suturaal mais dama xam ne dama xam ne dimanche la ñuy xam ne xale ak mag duñu benn xale ak mag duñu benn baab ba dimanche incha allah. président biñ la fal dig nga ji waa Parcelles roi des arènes ak Modou Lo te ci at bii lay doon ba tey yaa ngi ci loolu wala. tey laa ko gën a wax te lépp jaar na yoon pour loolu am Modou Lo pare na pare yu mucc ayib. fans club yi aussi parcelle waay ñëpp pare nañ Babacar te Babacar boo gisee tey fi daje xam na ni Parcelles pare nañ pour jël titre roi des arènes li may wax ci leer laa ko teg may wax rek am di ko ñaanal jàmm ak wér di ko wax bés mel nii buñ ci xaar gaaw ak na bu yéexee du baax ci mel nii mbër mu dem ci làmb ja du xaar gaaw ak yéex gaaw ñu daan ñu daan ci kàttanu yàlla bu soobee yàlla Babacar waaw laa wax maa la ko wax tey bu la amit passé dinañ ko waxaat incha allah. loolu baax na man lay jóg xam nga Eumeu Sène xam nga Modou yaa ngi dégg communication bi actuellement ñoom ñaar kan nga yaakaar ne psychologiquement moo gën a pare. non ñoom ñaar ñëpp pare nañu fu mu toll nii Modou Lo gëm na ni dafay daanaat kii di euh, Eumeu Sène waaye Eumeu Sène gëm na ni mu yore caaxaan yu tay loxoom boo xoolee keroog dafa ñëw toog ci wetam te Modou Lo kenn ñemewu revanche bu rëy la xaar. Eumeu loo koy moytuloo ci Modou caay caay gi ndax Modou day fudd ak a bitërniku nga yaakaar dafa sonn fekk sonnul nga Eumeu Sène bu baax a baax te bàyyi xel ci loxo Modou yi ndax Modou day bëre tànk waaye loxo yi ñu ngi ci bunt yi. Modou loo gi bëre gi bëre gi bu nga Modou Lo moytu parce que ni ma gisee Eumeu Sène dafa indi cosaan boo xoolee baax bu mu baaxu démb daa indi cosaan kon dafa ñëw bëri si cosaan bëri si séeréer kon Modou Lo na moytu loolu. tuwaat kontaan ndaysaan mu mel ni fii nga xam ne moo di terrain ak apes moo di lay waaj a dugg si noonu maa ngi seen mbër yi di ko xaar eh eh, eh lii mbaa du jinne Talla Ndiaye eh ma rax na lii nit la ah ah ah ah ah ah, ah. lii ndax waaru leenam cey waay réew mi mbiree eh Talla Ndiaye la roc des Parcelles moo di xarañ loo waaw di seen libaas doomu ndayam maa ngay seen 4-4 ba waa kii xanaa Kocc Barma Kocc Barma ci parcelle ak ay jubbam moo doon ngoo wulee 4 ba papi sama juutu dafa am seen naa ko. Babacar ay wax bi rek Babacar damay toog xombal rek gis la ngay interroger gars yi. xombal nga dëkk xombal laa dëkk. yow sorewuñu ma ak jaay. ak yaay ca ndondol. non moo tax nga baax. waaw watu lii ko ci bar ma la wala. yàlla xoolal moomu moo ñu ah. waaw moo leen boole kat. moo ñu boole amul. looy wax amul kon. non amul du ma ko wax gas ba mu ma suul romb ko. yaa wax wax te noonu la koy jëfee. ba jëngi barke Serigne Touba. cegin jaalakal. lañu organisé la presse dafa la pour tout la presse boo leen jëlee image ngeen ñëw taxaw ni yéen tamit lii nii ku ne yor sa programme ñun ñëpp mën nañu ko seet ba pare la presse sama gars yéen lañu ñaan yéen ñëpp gars s'il vous plaît waay s'il vous plaît sama gars dañu ñaan sama gars dañu ñaan taala mu do ngombuy sado mu ngombuy la ilaha illallah combat revanche combat gis naa Papa Sow gis Tafa Mbere Ngongu Coob seen naa fii kii ni si ñor waaw mu ngay dóor mu ngay sado de mu ngay dóor de ay inde inde cay dimanche waaye dimanche waaye Moustapha Diop sa lamb ji lamb ji nar naa kawe lamb ngi nii seen naa Papa Sow gaa yi leen waaye ndax gaa yi Lamine Lamine senu aleer waaye Modou ngi Papis Savon may seen Modou ngi Modou Ngongu mu ngay wax ak entraîneur ba loxo ya ca gaaya ca loxo ñu ngi koy génne ñu koy tëkkil gaaya cey Dimas laa ilaha illallah diggante am ak Modou Papa Sow ngoonguy dem si moom di wax ak Pape Mbaye Papa Sow doom pat ci sot la bokk dem Boy Niang Ama Baldé soq jël li ñoo war a seen nuyoo waaye lii daal eh la xam nga lii nu mu tudd déedéet Babacar wax lii mooy roof roofoo wala roofa ngi noonu loolu da koy def ngir yee say mbagg kenn yi ngay yee lii la ñuy def moo gis nga waaw loolu mooy wéwélé wéwélé nga romb mu wàcc tibb mu bañ looloo yëngal yaram muy sado do wàcc tibb moom it day jël ca tànk yi la jëm moom kooku réflexe lañ lay may daal bu sa ndig baaxul ku la song da ngay day jot say tànk bëre réflexe da caa baax bu waa ji ne yëqat nga ne ko dooma fi fekk seeti leneen yàq la muy def. loolu lay def nii tànk ya Eumeu Sène nag nee na combat bi moom ko amul condition dina métti ci yow waaye yow est que xam na Fara Modou Lo Eumeu Sène lay bëreel Fara bëreeg ngeer mais Fara dafa am lamb Babacar lépp ci taay si nga ak parcelle ah. ah waaw doy na waar Pikine parcelle axe bi ndax ah, dana wex xat. mburu mu tàng la Babacar mel ni ba nguur jaayee mbaam dana noppi lu dem. mburu mu tàng la Babacar. te xanaa mbaam ku ko jaay war a bàyyi noppi ya. dëgg dëgg Babacar. nguur nag daa jaay pare na noppi du fi jóge. loolu dana doy waar nag. ñu ko nag bu dee ngay dof dof lu nga xam ñoo la gën a naan kati jantaabe laaye ngoog laay Pythagore ñoom ñaar dañoo yàgg ànd nag laay laay moom léew la andi sànni droite taala mooy waa taala am lu may gis fii ci ginnaaw de ay ami lan la lii ay xoor la wala lan. xanaa ñii la sa waay nekkoon états ah, la déet dañuy pettaaw de. daa mel ne kër ñii la nekkoon États-Unis. ah yii pettaaw di de seen i rasta la ngi lang ca kaw ba ca suuf ñëw nañu di photo de. kee de téléphone ba bopp marle ca <laughs> est-ce que ñi duñu mbokki bopp. est que duñu doomu Bob Marley Baba. est-ce que jóge wuñu Jamaïque. que duñu ay doomu Bob Marley Baba. ndeysaan Jamaïque Jamaïque ca Bob Marley. ne dañoo man lii Sénégal yëpp saa lay wax fu ma jugee di dugg xam nga moo tax lii di bulee ci ñun xam nga di leen sant ñoom ñëpp te ñoo ngi bàyyi seen temps boobu léegi ñëw fii xam nga ngi leen sant di leen gërëm amuñu seen fay waaw na ñu ñëpp a yokk ñaan nag ba dimanche incha allah yàlla may ñu ndam ñu indi passé doon incha allah combat bi dafa yàgg parce que combat bi dañoo yàgg boo fay def da pare yëpp bëree door moom la ñu wax dinañ def lépp lu ñu war war sax lépp lu ñu doon def ko dañu ñaan yàlla rek mu may ñu kalaat fekkee ba dimanche ak jàmm lamb di laaj incha allah ñu def ko du ma gan ci lamb ba ay yenn kàddu yi di la woon rek mais signature bu lamb jë lamb jë léegi ñu ñëw wax ñu bari jar ko ci incha allah. bi dañuy yëngatu par rapport ak adversaire ñun dañuy wax ne physiquement dañu ci doxal par rapport ak yow dañu ko combat donc day réalisé. loolu mooy suñu liggéey muy combat taxaw mu ñàkk taxaw bi ñu war a nekk ñoom ñu chaque fois ñun ñoo ci làmb depuis saa boobu gën a nekk parce que ci làmb la jógee du bokk benn combat pare nañ ci yàgg. ñu ne ay maarab yoo xam ne nii ay ñaar ñaar yi ñu dañu ànd ak moom ñëpp ko bu doon mais ñëpp xam nañ sa diggante ak yéegi ne loolu bu ñu ko yëgee noonu la def falam. yooyu ay wax la rek lamb loolu baaxoon naa ak ay wax mais loolu amuñu ko. dañuy wax moom moom itam ci ay waxam dëgg nee na combat bi bu yoon bu yàggee yow yaay am benn yow yaay am problème. moom mu gaaw mu yàgg ci moom lay métti. loolu loolu chose la dem jëli ko le dimanche incha allah indi ko. amul sax benn wax dañ bàyyi ba dimanche bu jure rek yëpp dañ ci waxtaan bu soobee yàlla loolu après la ci ma gën ci làmb làmb yëpp amul bu ndaw ci man te couronne bi maa a bëgg a bëgg téeméeri yoon parce que loolu moo ma dese ci làmb ba tax na lépp lu ñu war a def moom koy def ñaan yàlla may ñu rek ak fekkee ba dimanche incha allah bu bureaucratie xëyee dem bureau ba ñu ñëwee léegi nekk ci entraînement yi ba tax na comme li ma wax combat bi ñàkk combat moo ci yem chaque jour ñu ci entraînement yi ndax moom lañ def métier. voilà. comme li may wax rek làmb mooy suñu liggéey amul lu ñuy moytoo ñu ngi naan lu nekk suñu kanam ñu war ci jaar dañuy jaar nekk leneen ëmb moo ne suñu kanam. nañu bëri moom incha allah faxas ko wax la di wax comme message bi su may supporter supporter Eumeu Sène ñëpp nañu añ ba suur civilisé dem lamb ku ne supporter seen mbër incha allah ñu ñëw partage bi ci tam sport Kaffrine la. a a neex xam pour man ko baaxee sax xalaat amul wax am solo am lii damaa ko loolu naan yóbbante Garga amul lamal le 28 soirée incha allah mais ñëpp ci di bëgg xool incha allah loolu daal la ko soobee dinaa la dugg dinaa la bu encadré dale kanam ñun encadré nañu suñu xel ñaan yàlla ñu may ñu fekkee ñëpp ñëpp lépp ñu ne la incha allah. encore beneen question bi mooy première démarqué di leen xool te di leen bëri ak loolu. xam nga leer naa la wax ñemewul loolu wax la rek. man de nii nee na dama àgg seen àgg. donc di sant ñëpp parcelle entreprise fépp fu supporter bu nekk jugee maa ngi lay sant di gërëm di nuyu gendarme yi depuis ci suba bi bu baax a baax Thank